الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ak fu ngeen mën di topp ak fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf tey di suñ ñaareelu jataay ci téere bu am solo boobu nga xam ni mooy al irshaadu ila saxiixi al ictiqaadi wa raddi ala ahli shirki wal ilhaad bi nga xam ni al cheikh al docteur Salih ibnu Fawzan ibnu Abdullah al Fawzan moo ko taalif bunt bi ñuy jël tey mooy wujubu maarifati al aqidati saxiixa wujubu maarifati al aqidati saxiixa cheikh bi nee na dafa war ci jullit bi mu jàng pas-pas pas-pasu lislaam dafa war ci jullit bi mu jàng pas-pasu lislaam kon jullit bu mu mënti doon bu góor bu jigéen mag ak ndaw farata la ci moom li mu war a njëkk a jàng mooy pas-pasub lislaam tawxiid ak la ca aju mooy la cheikh xaafida xakim yi doon wax naan awalu waajibin ala al abidi maarifatu rrahmani bitawxiidi id huwa min kulli l awaamiri acdamu wa huwa nawaani ayaama yafhamu nee na li gën a war ci jullit bi jàng ko jullit bi xam ko mooy pas-pasam bu leer nañ kon boroom irshaad nee na dafa war ci jullit bu mënti doon mu jàng pas-pas te yàlla moo ko santaane ndax pas-pas dina tax nga xam lu leer nañ li nga war a fas waaye tamit dina tax nga xam safaan ba ba moytu ko am na loo xam ni dafa safaanoog pas-pas lislaam am na loo xam ne far da koy yàq am na loo xam ne da koy wàññi moo xam bokkaale bu mag la wala bokkaale bu ndaw moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ca suratu muhammad laaye 19 mu ni faalam annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li dambik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la joqar bi foofu mu ni ko xamal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaka lii mbir tey mbir loolu dëgëral wax la lii mbir tey mbir li nga xam ne amul benn sikki sàkka mooy amul kenn ku ni jaamu ci dëgg jaamu ga di jëriñ ñàkk jaamu ga du lor ku dul yàlla subhanahu wa taala loolu nit ki da ko war a xam loolu mooy pas-pas bu leer nañ ni ko nag wastaxfir li dambika jéggalul say bàkkaar loolu moo tax al imaamul buxaari ci téeréem bi dafa ñëw mu ni baabu al ilmu qabla al qawli wal amal bunt bii daal li ma fi bëgg a leeral mooy jéemal a xam góor góorlul xam sa diine xam sa pas-pas njëkk ngay wax wala ngay jëf ak am solo ak am solo mbokk yi bëri nañ ñoo xam ni kaala nañ leen ñoo xam ni jox nañ leen micro ci télé yeeg ci rajo yi ñuy taltale di wax rek te njëkk ñuy wax jànguñu pas-pas ba xam ko moo tax jaxas rek la ñuy def ay bokkaale rek la ñuy wax bëri na ñoo xam tamit bëgg nañ lu baax jug nañ di jëf mais njëkk ñuy jëf jànguñu ba xam ñoo it ay tojaange rek la ñuy jëf kon da ngay xam njëkk ngay wax ci diini ji wala ngay jëf ci diine ji xoola suñ jamono ji léegi man damay seetlu fii ci biir Sénégal yeesaa da ngay gis sax ay tariqa am na tariqa yoo xam ne fii ci sax Sénégal wax dëgg yàlla boo fa demee même biir tariqa yooyu lu bon bon am na ñoo xam ne ay nitu xam-xam lan ñuy askanoo ca xam-xam même su fekkee ne seen pas-pas la ca nekk ma nga ca nekk mais bu ñuy wax dinañ dinañ bàyyi xel xam-xam jàng nan xam nan taxi mais da ngay gis ni tarixa yooyu dañuy jël waajoo xam ni dara dara ci diina xamu ko mooy nekk seen conférencier numéro un lu ñu bâche moom la ñu jox micro ba muy jaxase nu mu ko neexee yoonam nekkul ci texte alxuraan yi sunna yi moom daal nam santire wax ja ak na muy yëkkatee waayam noonu rek la koy def mais loolu man bu ma bokkoon ca tarixa yooyu sax dinaa ni kii nañ ko noppiloo parce que kii dafay dafay dafay gàkkal suñu der kon mbokk yi nit ki bala muy wax wala muy jëf lu mu mënti doon na jàng xam diine ju leer nañ alxaafid ibnu xajar al asqalaani ci fatxul baari bi muy bi muy bi muy egsi ci bunt bi di ko chara xam nga moom chara na ko ci fatxul baari charx saxil buxaari xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar mooy abul fadl 852 la faatu ci gàddaay gi nee na qaala ibnul munayir ibnul munayir na ñu koy liire nag ibnul munir mais du ibnul munir ibnul munayir la qaala ibnul munayir araada bihi an al ilma shartun fi sixati al qawli wal amal alxaafid ibnu xajar nee na ibnul munayir lii al imaamul buxaari wax ni baabul ilmi qabla al qawli wal amal nee na lim ci jublu mooy ndakate xam-xam gëstu xam-xam xam-xamu diine surtout charte la condition la ci sa wax mën a wér wala sa jëf mën a wér parce que soo xamul la ngay wax doo ca xam dara kon du wér la ngay jëf doo ca xam dara kon du wér kon bala ñoo reconnaître ni lii wax ju baax la wala lii jëf ju baax la xam-xam da koy lal bu ko xam-xam lalee yéene ju sell lal ko mu doogoy baax ibnul munayir mooy ahmad ibnu muhammad kun yaam abul qasim la mu lay dàkkantele nasiruddin dañuy wax nasiruddin ahmad ibnu muhammad abul qasim waaw as-sakandari six cent quatre-vingt-trois la faatu ci gàddaay gi ibnul munayir taalif na téere bu aju ci saxal buxaari waaw al mutawaari ala abwaabi al buxaari ibnul munayir moo ko taalif cheikh ali xasan abdulhamid kii na ko taxqiq na ko loolu moo tax alxaafis ibnu xajar di ko tudd lu bëri xaafis ibnu xajar fu mu waxee ibnul munayir ci fatxul baari rek fu mu waxee qaala ibnul munayir rek jàppal ni Ahmed ibn Muhammad la mais doo Ali ibn Muhammad am na Ahmed ibn Muhammad ibnul Munayir am na Ali ibn Muhammad ibnul Munayir ñoom ñaar sorante wuñu ci dund ndax kii 683 la faatu kee faatu 695 mais xaafis ibnu Xajar moom bu la neex qaala ibnu Munayir ci Fatxul Baari kooku Abul Qasim la Nasiruddin Ahmed ibn Muhammad kon mbokk yi da ngay gis ni. dafa war ci jullit bi mu jàng pas-pas bu leer naññ njëkk muy wax wala muy jëf loolu moo tax waroom xam-xam yi sonne lool sonne lool ci jàngale pas-pas taalif nañ ci jàngale nañ ko tasaare nañ ko ngir nit ñi xam ko nit ki da ngaa war a xam pas-pas bu leer naññ xam la safaanoog pas-pas ba nga xam ni même boo gisee la nga xam ni du noona da ngay xam ni lii du noona ndax dafa wuuteeg li baax dafa wuuteeg tawxiid soo gisee bokkaale da nga xam ni lii bokkaale la li lay may loolu nag mooy jàng boo jàngee ba jàng aqida muy pas-pas bu leer jàng maa yu dadduha li wuuteeg pas-pas bu leer soo gisee lu leer di nga ko xam soo gisee lu lëndëm loo xam dafa wuteeg pas-pas di nga ko xam loolu moo tax amirul muminin omar ibn alxataab radiallahu taala anhu waxoon waxam ja mu ni yuushiku an tunqada ora al islaamu urwatan urwatan ida nashaa fi l islaami man laa yaarifu al jahiliya nee na bu ngeen deful ndànk rek buumi lislaam muy buumi pas-pas yi nga xam ne moo téye lislaam ñu koy dagg ndànk ndànk maanaam di gor lislaam su fekkee ni am na ñu nekk ci biir lislaam ñoo xam ni xamuñu ceddo maanaam xamuñu lu wér ak lu wérut ba mën a jëfe li wér mën a moytu li wérut kon foofu da ngay gis ni jot na ba ci suñ école yi réew yoo xam ni ay jullit ñoo fa nekk ba ci suñ école yi ñu jàngale ca pas-pas parce que mooy base bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee fukki at ak ñett la toog màkka ci pas-pas rek la nekkoon di jàngale kon dañ ci war a gën a bàyyi xel di ko jàngale ci waxuma suñ école arabe yi rek nag mais ba ci suñ école français yi xam suñuy doomu jullite fa nekk war nañ cee bàyyi xel ci suñu jàkka yi dafa jàngale pas-pas bu leer ci sunu média yi moo xam ci rajo yi la moo xam ci télé yi la moo xam ci réseaux sociaux yi la li nit ki war a gën a yittewoo mooy pas-pas am na ñu bari nag ñoo xam ne ñi ngi góorgóorlu ci diine mais yittewoo wuñu pas-pas loolu nag mi ngi mel ne ngay ñaw rek ci pusoog wëñ boo xam ne takkoo tàdd fasoo tàdd ba loolu boo booy xëcc rek muy rocceeku mbokk yi ba ci suñ biir association islamique yi gone yi ci ne nan leen jàngal pas-pas bu leer nañ gis nga nit ki bala ngaa dugg moom di ko jàngal culture ak i politique ak i nangam naam yooyu yëpp xëy na baax na di ko jàngal mais jàngal ko pas-pas ba mu leer nañ ñi ci boppam sinon bu leerul moom bu demee ba nekk mag jàpp ni yor na xam-xam léegi nag moom mooy mujj di jàngale di leeral te fekk lu bëree bëree bëri bëri ci pas-pasam leerul moom kooku nag bu demee tey ba nekk kilifa bu boobaa mën na mën na indi ay njuumte yu rëy ci buntu pas-pas kon daal dafa war ñu jàng pas-pasu lislaam ak la nga xam ni moo wuuteeg pas-pasu lislaam te alxuraan yépp nag alxuraan yépp génn loolu presque cheikh bi indi na fi waxu ibnu qayyim ibnul qayim rahimahullah ibnul qayim dafa wax wax ju am solo moo tax mu indi lii nee na alquranul karim booy seet lépp presque wala la ca ëpp la ca ëpp ci pas-pas lay wax alquran nee na booy xool imma mu indil la xabar bu jëm ci yàlla ak ay turam ak i melokaanam xam nga ne loolu mooy tawxiidul ilmi alxabari wala mu lay woo ci nga jaamu yàlla subhanahu wa taala te wéetul ko moom dong bañ koo bokkaale kaneen te moytu laneen lu ñuy bokk lu ñuy jaamu lu dul yàlla loolu boo ko déggee mooy tawxiidul iraadi at talibi wala ñu koy tuddee tawxiidul uluhiya loolu it ci biir tawxiid la ibnu ibnul qayim mu ni wa imma amrun wa nahyun wa ilzaamun bi taatihi fa dalika min xuquqi tawxidi wa mukammilaati wala nga fekk ca alquran mu lay digal wala mu lay tere wala sax mu lay wax ni la dangaa war a jaamu yàlla ndax yooyu dafa bokk ci àq tawxid boo gëmee ni yàlla mooy kenn moom rek lan war a jaamu kon danga ko war a jaam loolu lañ tuddee dilaalatu liltizaam di laa laa di ci ci ci ñuy jàngale mantiq dañ lay wax ni dafa am lu ñuy tuddee dilaalatul iltizaam ak lu ñuy tuddee dilaalatul tadammun ak lu ñuy tuddee dilaalatul mutaabaqa bii nag de dilaalatul iltizaam la soo soo reconnaître ni yàlla dong mooy kin war a jaam kon force danga ko war a jaam loolu rek lay wundu mu ni wala imma xabarun an ikraamihi li ahli tawxidi wa ma faala bihim fi dunya wa ma yukrimuhum bihi fi l axira wa huwa jazaau tawxidi mu ni imma wala boog alquran mu ñëw di la wax li muy terale ñi nekkoon ci tawxid ca àdduna ak lim leen di fayee ëllëg yowm alqiyaam te nee na loolu mooy fayub ñi nga xam ne ñoo nekk ci tawxid kon ba léegi ci tawxid la dellu mu ni wa wa imma alquran ñëw nekk xabar boo xam ne an ahli shirki wa ma faala bihim fi dunya min annakaali wa ma faala bihim fi luqba min alaadab fa huwa jazaau man xaraja an xukmi tawxid mu ni wala alquran ñëw di la wa wax jeexantalu ak mujj ñi nga xam ni danoo bàyyi woon tawxid nekk ci bokkaale li leen yàlla di faye ëllëg yowmal qiyaam ci mbugal mu ni loolu tamit fayu ñi nga xam ni danoo génn tawxid la kon alquran lépp tawxid la alquranu karim kulluhu tawxid kon daal mbokk yi da ngay gis ni ci sunu ñaareelu jataay bi war na ci jullit bu nekk mu góorgóorlu jàng tawxid rawatina fii ci suñu Sénégal ñun suñu crise du crise u alal de suñu crise du crise u xam fiq ñu ñu aay ci fiq ñoo fi nekk ba pare di mëq ci suuf ñu ñu la mën a firil téere fiq yépp fi nag xam ko lool te buñ jógee di sujootal keneen ko dul yàlla ñu dégg fiq loola fi nekk xóotaay yaag yépp ngir yaag yi détail ya te boo xoolee seen digg li béjjën yaag xarfa fufaay yooye ca ne ñu dégg fiq loola fi ne man ci am sax ay lijaasa yu rëy ñu yaakaar kaneen ku dul yàlla te kan kanin yaakaar sax boo moytuwul bu dee ci xam-xamu diine dong ñoom ñoo ko ëpp xam-xam waaye comme mooy doomu diw wala moo sant sant diw xalaas kon darsu tey bi daal moo doon war gi mu war ñu jàng pas-pas te loolu nag lu jar a bàyyi xel la ndax yàlla wax na ko ni faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik ak yeneen i aaya dafa war nga xam pas-pas bu leer nañ al imaamul buxaari ni la bala ngaa wax wala ngay jëf jàngal xam alxaafis ibnu xajar indi shara loolu ci waxu ibnul munayir kon nag tawxid mooy li njëkk mooy li mujj te alquranul karim lépp tawxid la comme ni ko ibnu qayim il jawziya waxe wala bu la neexee nga ni ibnul qayim